waaw si wàllu feebar bi di Covid 19 de ñu raisonner en termes de tendance baissière ak euh, tendance hausse dama bëgg ñu raisonner si donc combat boo xamante ne ñu koy gagner dans la durée ak si endurance parce que bés ak bés dafa jege mën na wàcc tey suba mu mais ce ñu am solo rek que ne si période de l'année. xool te ñu am période yi ñëw ñu avons effectivement donc. Euh, euh, taux de positivité mais aussi le taux de guérison c'est ce ñu donc ce que nous rek fait, ñu raisonner de manière active c'est tendance baissière par jour mais nous avons une philosophie d'endurance dans le temps et dans la durée et nous ne bu ñu ñu inscrire Sénégalais nous avons comme que nous mooy suñu philosophie nous avons combat nañu donc nous avons pour respecter les mesures barrières et bi nous ci les mesures barrières mooy que kenn bañ a xàjjale ko ak sa masque tous les jours de manière permanente nit ñi takk seen masque loolu bu ñu ko defee respecter yeneen mesures yi mooy euh, jàpp si cet gi mais aussi respecter tout ce qui est distanciation yaakaar naa ne donc am euh, benn euh, ndam si xeex bi xamante ne ñu ngi koy xeex. lu mel bu amee il faut ku nekk joxe sa xalaat. Euh, xalaat boo xamante ne nga yaakaar ne communication bi doyul tam bon man am xalaat la si aspect communication yooyu ñoom ñun dañ siy def ay jàngat mais li ma mën a wax rek mooy que ne depuis le début ñun suñu principe de communication mooy transparence transparence encore la transparence fexe ba nit ñi dara bañ leen ump si mbir mi bu leen umpul si mbir mi ku nekk di nga jëfee li ñu la santé yaakaar naa ne loolu si la ñu nekk moom la ñuy continuer mais lu mel noonu bu ñu ko déggee toujours dañ koy téye considérer nag lu ñu war a mën a jàppale bu fekkee am na jàngat bu ñu siy def ñu def ko si